maaleykum mbokku internautes yi am nañu mbégte tey aussi euh, di recevoir euh, invité bu mag Adja Marème fay Fall ah asalaam ah, Adja Marème Fall nekk coordinatrice euh, section APR e bu 18e arrondissement yore aussi benn mbootaay bi am doole fii ci France muy ñu koy ne les amis de Marième Faye Sall ak Marième Rema du noonu Adja voilà salaamaaleykum Adja fa Fall. maaleykum salaam Cheikh Sidi Silla. alors tey nag dañ la dañu la seet si balaa balaa ñuy dugg ci questionnaire bi ñu bay la nga nuyu mbokk yi d'abord. waaw Cheikh Sidi Silla maa ngi lay nuyu di la ziar yow ci sa bopp déjà di la bisimilah ci kër goo xam ne doo fi gan. Mm-hmm. su ma fa jógee damay dem ba palais fekk fa son excellence monsieur le président de tous les sénégalais l'homme du plan émergent le président de l'union africaine. l'homme des chantiers di ko nuyu di ko ziyaar di ko ñaanal une bonne continuation dina ñuy waale soxnaam tam Marème fay Sall bi nga xam ne moom lañ tuddee suñu ñaari panel yi di ko nuyu di ko ziyaar mooy suñu idole mooy suñu référente mooy suñu royukaay hmm. ah balaa maa dugg ci waa France yi ñoo ngi nuyu tamit suñu premier ministre bi nga xam ni vraiment politique bi mu def démb ak déclaration de politique générale de bi mu def hmm. démb hmm. vraiment ñëpp ci kontaan ñu ngi koy ñaanal moom tamit une bon continuation soo gisee président Macky Sall tànn ko teg ko fii c'est pas pour rien kon yàlla bu yàlla tas sa yaakaar. Hmm. kon ñu ngi koy féliciter bu baax a baax moom itamit. su ma paree dinaa ñëw fii ci France dinaa fi fekk suñu consul général monsieur Amadou Diallo Amadou Daouda Diallo maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu suñu ambassadeur monsieur Sey. ñu ngi koy nuyu Maguette Sey ñu ngi koy nuyu di ko ziar moom tamit coordinateur général Amatalla Daf ak ñi muy liggéeyal ñëpp duma lim. maa ngi leen di nuyu di leen ziar corps diplomatique bi nekk fii yëpp ce sont les consuls qui sont à yi nekk Marseille yu nekk Lyon yu nekk euh, partout en France. Mm. ñoom ñëpp nuyu naa leen ziar naa leen di leen ñaanal jàmm di sakku ci ñoom ñaan. yow nag ku bëgg football nga aussi de xam naa seet nga Lions yi ci coupe de coupe du monde bi. di féliciter tamit suñu Lions yi. Mm. man naan suñu lion yi suñu Lionceaux yi. Mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla. jàmbaar lañu dañoo gëm lu ñuy def gëm nañu lu ñuy def am nañ ci conviction dem nañ ba huitième de finale foofu la ko yàlla arrêté woon mu arrêté foofu suñu président bi nga xam ne bii di xeebul kenn dem fekk leen ba fa ñu nekkoon gën leen a féliciter gën leen a encourager waaye nag yàlla fu mu yemal dara rek foofu lay yem prochainement incha allah. dama yaakaar ni coupe du monde bi ni coupe d' Afrique bi ñëwee woon coupe du monde bi dina ñëwee noonu. Hmm. incha allah. Hmm. waaw Mariam boo gisee tey man sama sawar ñëw waxtaan ak yow. parce que hmm. dama gis ay vidéo ji dégg ni si vidéo yi que euh, da nga jotoon financement. Euh, euh, Fez. Fez xaalis boobu au lieu nga jël ko pour sa projet personnel nga jël ko fay formation pour ay jigéen. Euh, expliquer ñu nu mu demee loolu lu tax nga def ko. ah question bi de question bu ma neex la. ndax nit bu ngeen di ànd ay nit topp la bu dara duggee sa loxo danga leen a war a dimbali les amis fay Marième Faye Sall Marième ma yàlla moo yor pay mais mënuma yor seen fay. yàgg nañoo ne dañoo bëgg a def formation ma ne leen xaar leen xaar leen bi nag dama defoon demande bi ci fees bi. yow xam nga fees lu mu tekki présent Macky Sall indil ñu ko fii di dimbali jigéen ñi pour ñu ciy liggéey ma def demande bi ma defee njëkkoon naa def demande man ñu njëkk am financement bi fii ci France man ci laa bokk yàlla buur bu baax bi dimbali ma ba ma fay lépp centime yoreelu ma leen ko. waaw ah, yow bokkuloo yoo xam ne dañuy ne fees bi pour pour pour may waa affaire xaalis loolu. naata Samb soo ko gisee. maa koy nuyu au passage nga laaj ko kuy Marème Fall dina la tontu foofu lépp laa fay. monsieur Kassé mi nga xam ne moom moo nekk tamit euh, banque de l'habitat mm-hmm. mun na ma seede GP ba ci dernier centime bi fay naa ko parce que bi ñu la may ma donné c'est donné mais prêté c'est prêté. tout à moo tax bi yoon bi ma defee demande bi ils ont même pas hésité gis nga bi président ñëwee bële yoon dama ñëw tase euh, xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk consulat. Mm. ay madame Ka ñoom maa ngi leen nuyu au passage ñoom tamit dama taxaw rek ñu ne ko on est de toi maman que ba nga jëlee xaalis bi da nga ko fay ba mu jeex. Mm. ma ne leen loolu la normalement da leb dañ koy fay même ci alxuraan <laughs> boo lebee dara da ko war a fay soo ko fayul fii nga fay ko fële. donc il vaut mieux fay ko fii. donc bi ma ko defee ci dañ ma accordé prêt bi bi ma accordé prêt bi nee naa leen man bëgguma ci dara am na ay problème de ñëpp am problème. maa ngi nii sax maa ngi ci këru kii këru <laughs> naa ko cee dugal wala feneen. Mm-hmm. non mais ñi may topp tam foog ma dimbali leen. te ma jël xaalis bi séddoo leen ko ñi am ñaar téeméer ñi am ñetti téeméer déedéet ma defal leen formation boo xam ne dañ koy njëriñoo ëllëg ak si biir doom mun nañ cee njëriñoo seeni dëkkandoo mun nañ cee njëriñoo ba ci seen sax mun nañ cee njëriñoo. ci lan nga lañu lañ leen formé noonu comme ça exactement. léegi fi ñu commencer nii. Hmm. mooy affaire cosmétique. def nañu neuf defe naa kii yu bokkul def nañu gel javel eau de javel. def nañu saabu. Mhm. def nañu shampoing def nañu gel douche def nañu lip pour les lèvres crème pour le corps defar nañu détergent ak leneen si damaa gaaw fàtte de. mais maanaam <laughs> loolu yëpp léegi war nañu ko mën a defaral seen bopp di ko jaay. ah ci ni ma ko gisee de. ku mhm. nekk mu ngi yoroon stylo ak feuille am di bind. lii nga war a jënd balance baa ngi toog dangay ngay peser lii nga ciy def ak lii ak lii ak lii nga teg ko pendant combien d'heures mu soppeeku nangam beeg nangam bi loolu laa gis ñu yoroon mu ne ku ne yoo noonu kayam ak fuyam mhm. ñu yor seen i portable di filmer donc ma defee ne même bu ñu mokkalul à 100 pour cent am na lu dugg ci seen bopp yi parce que c'est des femmes qui sont vraiment motivées et c'était très motivé mhm. wallaay. Mhm. mais léegi léegi euh, est-ce que formation bi fii lay yem wala nu muy demee noonu. formation bi kay du fi yem nag yow tamit euh, ñu ngi soog a commencer. ñu ngi fa commencé te maa ngi lay wax sax balaa ma laa wax balaa lu ciy tegu gis nga France gii fii lay ñëw former jigéen ñi fii ci France fii lay ñëw di former ay jigéen tax ay retraités rek fi nekk elles ont rien de leur journée ñu ñëw fii former leen ñu hmm. njëriñoo ko seeni i doom njëriñoo ko bu ñu demee Sénégal dinañ leen jëriñ parce que même boo deful pour jaay di nga defal pour sa kër hmm. yi ma compté yëpp xam nga dañ koy soxla ci biir kër tout à fait <laughs> donc soo ko deful pour jaay di nga ko defal pour sa waa kër balaa loolu lii bu paree dañoo nar a jël liñ ci récolté ku nekk am na loo si war a jël sa part nga yóbbu sa kër. d'accord li ci des dañu koy jaay suñ ko jaayee fond bi ñu ci récolté je pense que ça va être moins de mois incha allah dañ dugg ci agroalimentaire bi mooy jui yu ñuy defaral jus de bouy jus de ditax jus de bisaab. Ah, mm, mm, mm. jus de mangue. jus de goyave jus yooyu yëpp et puis c'est naturel quoi mun nañ ko. c'est naturel te c'est pas amul dara luñ ci importé tout est fait au Sénégal. ñu ni def loolu xam nga ni loolu suñ ko defee. ñii xew ñi souvent dañ koy soxla ci xew yi te xam nga Sénégal moom <laughs> boo ne Sénégal rek ne mm, xew mm. donc dinañ ko ciy soxla bu baax a baax a baax a baax waaw suñu paree ba loolu pare dinañ dugg ci céréales yi dañuy defar cere defar caakri defar euh, kii mati li ñu mooñ pour ñuy defaree laax mm-hmm. defar ay sànqal loolu yëpp ñu defar ko loolu yëpp su ci bu ñu amee possibilité di ko ñëw indi jaay fii France c' très bien. dina am possibilité bu soobee yàlla dégguloo ma ne la formateur bi sax mooy ñëw ba fii di leen former. Hmm. dinañ ci a exporter fii. te pour na ne ñi ñëwoon foofu di def formation bi am na nañu jógee ba Gambie am nañu jógee Gambie dañoo bokk si les amis de Marième Faye Sall. am na ñu jógee Kaolack am na nañu jógee Gandiaye am na ñu jógee Fouta. Thiès am nañu jógee Diourbel. ah kon partout la ñuy jógee. partout la ñuy jógee Sénégal ñoo daje foofu d' accord maa tellement kay am na ñoo xam ne dañoo jóge fu sori kër ga la ñu doon fanaan foofu lañ doon fanaan pendant trois jours fa la ñuy yendu fa la ñuy fanaan parce que mënuñu woon ñibbi ba seen dëkk di ñëwaat Daaru Musti am na ñu fa jóge donc euh, partout au Sénégal am na ñu fa jógee ñëw pour dugg ci formation bi. Mm-hmm. parce que pour ñoom c' est très important te man tamit je trouve que c' très important. Mm-hmm. yàlla nañu ko yow rek jàmm ak salaam mooy politique développement. Mm-hmm. maanaam yow da nga yaakaar ni daal que Macky Sall mënul mënul financer ku nekk yow nga nekk intermédiaire euh, expliquer ñu euh, concept nu mu demee. concept bi mooy déjà fees bi may wax nii. Mm. Macky Sall moo ko indi moom moo fi indi di lebal ay jigéen ay xaalis président Macky Sall moo ko fi indi ñu ko ciy remercier bu baax a baax a baax deuxièmement président Macky Sall mënu def lépp man dama gis ko sa robine bouché sax ñu ne président Macky Sall inondation boo amee ñu ne président Macky Sall teen bi de amul ndox président Macky Sall mais nit ñi dañ ci def seen loxo di créer entreprise yu ndaw parce que di entreprise bu ndaw la te deux fois zéro waaye nag c'est quelque encore. kon nag lii pour dimbali président de la république son excellence Macky sal nee naa ku ci am dara na ko remercier bu leen ma remercier remercier leen son excellence monsieur le président de la république. waaw ah monsieur Macky Sall. voilà mm-hmm. parce que moom mënul def lépp. Mm-hmm. waaye bu ku nekk di def lii ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk bu yàggee chômage bi dina wàññeeku ci biir Sénégal un de deux banditisme bi sax dina wàññi Séné wàññeeku Sénégal. ci lisi la xam nga la moo ma jaaxal Sénégal léegi te amu fa war mm. ay jigéen ñoo xam ne ñoo fi nekk di sàcc wala di nekk bandi maa ngi jéggalu ci ci kàddu yi mais boo amee foo jàpp loolu yëpp da koy bàyyi. ñàkk pexe booy def ngay def loolu yëpp mais boo amee foo jàpp da ngay bàyyi loolu yëpp te bul xeeb dara dafa bi ma xoolee vidéo bi sax dafa am benn benn benn message boo xam ne dafa attiré sama attention jigéen ñi di ne ñaari loxo mooy takk pantalon ñaari loxo mooy waddu sër mhm. donc ñoom visiblement mhm. comprendre nañu ni jigéen aussi euh, war na mën a def dara voilà loolu lañu comprendre ne jigéen warul toog rek peut-être suñu temps yaay yi suñu temps maam yi c'était comme ça mais les temps ont changé les temps ont changé la vie est devenue dure bu ñu nekkee ku couple nekk ci kër gi jëkkër ji day jàpp fii jabar ji jàpp fii doom yi jàpp fii surtout sama classe gi genn wàll gi les trois quarts sont en retraite nga am di li di nga ci génn sa dépense génn ci sa frais kër ndax saabu dañ koy soxla ci kër eau de javel dañ koy soxla ci kër shampoing détergent crème pour le corps yëpp dañ koy soxla ci kër gi nga defaral ko sa bopp ça te fait de frais ça te fait moyen de frais te encore muy gën a naturel du am benn additif. Hmm. waaw. mais genre politique bi yow ma dafa mel ni yow daal parce que déggoon naa keroog Amadou Ba di ne il faut ñu ñu liggéey pour jëlaat dakaar parce que lu ñuy def dakaar kenn mosu ko ci def dafa mel ni yow initiative boo jël ni ci ci loolu lay dugg daal maanaam remobiliser encore les militants pour ñu man pour Macky Sall mën a gagner ou APR mën a gagner Dakar. yoo xam nga yow moom da mën a gis tu vois juste. Hmm. jigéen ñi ma indi former leen foofu pour ñu def formation bi te bu ñu ñibbi am nañu seeni doom am nañu seeni dëkkandoo am nañu seeni xarit Macky sal de waxagul dara 2024 waxagul dara de. Hmm. waaye ñun de ñun laa wax suñu les amis de Marième Faye Sall Marième Rema bu dag bu Paris su ma neexee sax boole ci section 18e ndax fii laa fii laa fii laa fii laay milité. Hmm. dañoo bëgg 2024 bu fekkee ne président nekk na candidat.

du noonu dafa fekk ñu wé ba ñu voté boobu loi ba pare donc deux mandats consécutifs de cinq ans dina ko def parce que loi bi moo ko ko jox ñi ko bëgg a contre nag dañoo bëgg a dévier affaire bi rek waaye nag wax dëgg yàlla ilaa le droit yoo xam yow miy wax sax xam nga ni ilaa ilaa le droit man damay laaj rek maanaam <laughs> man laaj rek waaye en tout cas deuxième quinquennat bi ndakaaru ci boppam lañ bëgg a gañe waxuma fuuta de fuuta c'est acquis waxuma feneen c'est acquis waaye ndakaaru ci boppam la ñu bëgg a jël drapeau bi daal di koy daal di koy ébranler ah il faut ngeen gañe France aussi parce que gañe yoon na ngeen si législative France dinañu gañe France dañuy jóg dès maintenant duñu xaar boobu France hmm. xaaral xaaral tuuti sedd bi sedd bi tane nga seet xaaratu ci sedd bi. sedd bi yow yaakaar nga ni parti bi fu mu toll nii ak organisation bu am nii foofu am na possibilité renverser situation bi wala il faut gis nga il faut ñu defaraat parti bi. bon defaraat bi kay moom waxa waxaale waxaale wuñ ko defaraat bi moom wax dëgg yàlla ñëpp comprendre nañ ñu foog ñu defaraat li ñu war a defaraat dafa bëri. wax dëgg yàlla comme lan par exemple. comme euh, par exemple man je parle de, déjà de coordinations. Mmh. mais avant les coordinations y les sections nit ñi nit ñi doon gën a góorgóorlu. mais bi coordination yi amee ba léegi ku nekk dafa négliger sa section ndax nee nañ coordinateur bi rek moo fi nekk c'est le coordinateur donc ñun euh, voilà on baisse les bras c'est pas ça dañu retourner ci base yi coordination yi man de gisuma lan la ñu yokk soo gisee ma koy rafetlu rek ci président la jóge te man lépp lu jóge ci président dama koy rafetlu mais nag gisuma lu ñu fi yokk de man je parle à mon nom personnel gisuma lu ñu fi yokk xam nga lu nit ñi war a def dellu ci seen section yi képp koo xam ne dafa dumbooy woon ñu jëli ko képp koo xam ne bokkul woon te ñu xam ne sénégalais nga nga yor sa carte nationale d'identité nga mun a voter ñu dem ci yow indi la man noonu laa ko gisee waaye coordination yi moom ah ngeen baal ma xam ne gisuma ci benn importance man personnel je parle à mon nom personnel xëy na ñeneen gis nañ ci importance mais man gisuma ko ci. waaw Marème man dama bëgg ñu delluwaat encore ci ci ci initiative boo boo jël noonu parce que barewul ñu koy def. Mm-hmm. barewul ñu koy def am sa sa xaalis nga jël sa propre prêt. au lieu nga jël ko dugal ko ci sa euh, affaire bopp nga koy dugal si ay nit kooku euh, dafa mel ni genre jaamu yàlla yooyu la daal parce que man mënuma gis euh, nit di jël parce que am na ñoo xam ne dañuy nekk ci partie bi souvent APR sa da ngay dégg nit ñi di xuloo affaire xaalis yow xam nga ko ci dara yow léegi nga am sa propre xaalis boo xam ni da nga ko war a fay nga jël ko di ko di ko dugal n'est-ce pour ñeneen aussi am dara loolu c'est rare li nga wax dëgg la c'est très mais nag ay nit bu ñu nekkee dañuy dimbalante man noonu laa ko gisee yow xam nga ma ci boobu côté xam nga ci boobu côté. social koo xam ne yow yaa ko tane da nga koo war a dimbali te man ci loolu laa dox. li ma la wax nee naa la xaalis bi mënoon naa ko yor sama séddale leen ko ku nekk am sa wàll boo demee jënd sa benn gramme togg sa reer wala nga jënd sa benn gramme bu rafet jeex na non non non mais dama ne liggéey leen mu njëriñ leen njëriñ seen doom njëriñ seen sët. loolu moo tax ma jël xaalis bi ma def ma def ko ma def ko foofu dama leen bett sax ndaxte man ki leen di former lii am na ñeneen ñu mu njëkkoon a formé mais képp kuy ñëw dañu laaj sa participation képp ku fa duggoon dañ leen laaj sa participation ñu ngi may mm. dégg te affaire bi dina génn ba ñu gis ba ñu dégg ko ku ne dañu laaj sa participation man ne naa laajuma leen un centime centime laajuma leen ko du seen lekk du seen naan du seen tëdd du li ngeen dafay ki nga xam ne moo leen di former lépp bu soobee yàlla incha allah man maa ko engagé te man lu may def ma ko assumer. waaw mais xam nga euh, comme man yàgg naa la topp gis naa li ngay def mais euh, social bi euh, mun nañu yaakaar ni politique la. Mhm. mais même France fii gis nañu weeri koor ngay togg di yóbbu si jumaa yi ngay sedd bi bu jotee ngay dem ci sans papier fekk leen fu ñu nekk nga xam ne sedd France bi même boo nekkee ca biir néeg day métti surtout booy fanaan ci biti. Mhm. ngay jël ay yére. di togg di defar lu nekk yow jël sa oto dugal ko foofu dem fo euh, porte la chapelle jox ko sans papier mm-hmm. mais en fait euh, euh, affaire sociale boobu lan moo la ci xër noonu comme ça loolu laa bëgg a xam xam nga dañuy wax rek mais social ak diine l'islam ñoo ànd hmm. social ak diine l'islam ñoom ñoo ànd diine l'islam nee na koo xam ne kii ni yow tane nga ko defal ko ko te soo gisee sax Cheikh Sidi Silla yu bëri wax naa la ko bi ñuy dem porte la chapelle soo gisee ñu koy filmer te à dire que am na ñoo xam ne xamuñu ni am na ñu fi nekk amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan amuñu lu ñu sol mais suñu gisee film bi dinañ xam ne ñoo ñu am nañu te ça va les inciter à à faire la même chose loolu tax souvent ma koy filmer mais nan ngay rombe ay nit neige bi di tombe man maa ngi nii ci sama biir kër mais dama liw mais ku nekk si biti waxaale wuñu ko nga am sa mbaaj nga jox leen te ñun suñu kër yëpp ñu fi nekk te njaboot wax dëgg sol yére bi une fois nga fóot ko ba mu set lem ko ba mu jekk dugal ko même soo amee sac de voyage wala say sac poubelle nga takk jox leen ko mais sa fait 15 jours yóbbul naa leen fi ay yére su ma mënoon a yokk leneen jour boobu dinaa yokk leneen tellement que sama xol bi dafa tooyoon waaw dañoo war a dimbalante ci àddina bañ a gourmand ndax alali àddina bi Cheikh Sidi Silla fii lañ koy bàyyi kenn du ko yóbbaale. ah donc euh, balaa ñuy euh, terminer ci ci partie bi ma euh, bàyyi la nga wax sa dernier mot ci surtout si initiative bi ban message ngay envoyer aussi yeneen responsable yu nekk ci partie bi bu ñu mënee continuer di def comme yow. waaw ni ma wax rek ku ci am sa tuuti rek boo yónnee si suñu réew ma xam nga am na looy am fii xeeb ko te fekk foofu wax dëgg yàlla xeebluwul foofu dafay njëriñ foofu lu bëree bëree bëri képp koo xam ne mun na def lu mel nii. wallahi amul problème soo ko defee di nga ci am tiyaaba te président Macky Sall dina ci kontaan ndax président Macky Sall bu gën a ko ko jàppale bu gën a ko ko dimbale parce qu'il en a besoin ndax nee naa la bu inondation amee sax ñu ne président Macky ndox moo naan nga ne mais boo amee keneen koo xam ne à côté def vraiment dina ko dimbale te dina ci kontaan su loolu passé tamit lu ma ci buggoon def balaa ma koy balaa may tëj noonu xam nga ni président Macky Sall dañ ko def ci deuxième phase mais dinaa ko wax ci biir phase tamit ci euh, coopérative bi nga xam ne Chapitel Sall moo ko jiite jox nañu ay kër Mamilor ah, léegi président Macky Sall comme jox nañu ay kër foofu te kër yi foofu gisuma fa benn magasin ma doon laaj président Macky Sall bu ñu ubbilee foofu bu ko mënee ubbil foofu magasin wala Marème fay saal lii may wax nii lépp dañ ko fa exposé jaay ko fa. donc euh, produit yi ak euh, agro alimentaire yi au ñu koy wuti feneen ñu ñëw ci suñu bitik boobu nga xam ne Marème Faye Sall photo mooy nekk ci buntu bi ñu dem jënd foofu. loolu tamit dinaa ko ci yokk bu soobee yàlla incha allah ñu ngi ci boobu projet wut foofu magasin boo xam ne bii nii dina mun a distribuer nit ñi suñu aliments yi bu soobee yàlla incha allah incha allah di ñaax nag sama mbokk yi ni ñu ko waxee ku ci nekk soo amee sa tuuti nga yónnee ko Sénégal Sénégal xeebuñu dara te temps yi yu métti la ñu ci métti la vie est dure partout ce n'est au Sénégal c'est la vie dure ñu mun a dimbalante mun a yërëmante mun a óoluwante comme ça bu soobee yàlla lu ñu sumb rek. yàlla dinañ ci dimbali ndax soo defee dara de bon cœur loo sumb yàlla dimbali la ci. Hmm. c'est l'expérience. jërëjëf Mariam. merci beaucoup jërëjëf